donc, euh, messieurs et madame euh, de la presse, d'abord tous nos remerciements pour cette présence plus ou moins massive euh, à ce point de presse. Donc, euh, aujourd'hui, donc, il est question, alors pour euh, le président fondateur de ce mouvement-là, Euh, war na askan wi raw en l'occurrence euh, Pape Samba Sène euh, de vous entretenir un peu justement sur aujourd'hui les exercices qui vont concerner en fait à la relance de son mouvement qui a été créé il y a de cela deux ans euh, dans la capitale euh, du bassin arachidier euh, de toute façon, lui-même, il peut revenir sur certains aspects, euh, mission, rôle, objectif, tout ça, en fait, euh, euh de son mouvement. Mais d'ores et déjà, simplement, euh, il faudrait savoir que ce mouvement-là a été créé à peu près il y a deux ans, euh, je me répète. il est soucieux, ce mouvement, Il est soucieux simplement de participer à la vie active du pays. Euh, D'abord au plan social et aussi au plan euh, du développement socio-économique. Et donc, euh, euh il, était, il, est, il, a été ainsi question pour ce mouvement. Alors donc, euh, disons, de mettre la main à la pâte, euh, puisque depuis sa création, ce mouvement n'a cessé de poser des actes concrets euh, entrant dans le cadre justement euh, de l'assistance et de l'appui, euh, surtout des couches euh, vulnérables, euh, disons les plus euh, déshéritées de, de, no de, notre pays. C'est vrai, Papsamba Sen, tout le monde l'a connu dans le champ médiatique sénégalais comme patron de presse. Alors donc, mais Vous savez aujourd'hui que si, en fait, on est imbu, si on est préoccupé justement, euh, disons, de la question citoyenne, et si aussi on est préoccupé aujourd'hui du développement socio-économique de son terroir et aussi de son alors donc, euh, alors, euh, sans nul doute, alors, euh, cela euh, a expliqué justement son implication alors dans euh, la vie active, je me répète, en tout cas, cela a expliqué pleinement, disons, son implication alors donc dans la marche de son pays. Pour ne pas peut-être monopoliser trop <laughs> la parole, alors donc euh, maintenant je lui donne la parole, alors qu'il puisse, puisse simplement faire son texte liminaire. Merci euh, de votre présence. tout le monde sait que vous êtes très occupé, mais par contre, euh, vous êtes venu à être là. Cela témoigne de votre sympathie et de votre disponibilité. Donc, euh, Madame, Messieurs, membres et sympathisants du Mambrouar, chers confrères, chers journalistes, le mouvement War qui tire son nom de deux concepts profonds, waar comme champ où se forge notre avenir, et sa signification en tant que, en tant Wolof peut-être, Warna Askan Birao, qui est un mouvement citoyen que nous avons lancé il y a de cela deux ans. Un mouvement citoyen qui tire ses obédiences dans les entrailles et dans les intérêts des populations. On n'a jamais voulu être ni de l'opposition, ni du pouvoir. Donc, soulignant l'importance de placer le peuple au cœur de toute action politique et sociale, incarne cette vision de la citoyenneté active. Le mouvement War se dresse comme l'un des phares de cette révolution civique, prêt à étendre son influence et à éteindre également ses tentacules un peu dans les 14 régions du pays, avec un programme ambitieux destiné à éveiller les consciences citoyennes de chaque Sénégalais, jeunes, vieux, hommes et femmes. Donc, pour la restauration des valeurs civiques et républicaines, Au cœur de notre combat se trouvent les valeurs républicaines et civiques, comme je l'ai dit tantôt, qui ont longtemps été le fondement de notre société. Dans une époque où la moralité politique semble s'étioler et l'indifférence règne, le mouvement War s'élève comme un rempart contre l'incivisme, contre le cynisme de l'apathie. Nous clamons haut et fort notre engagement envers les valeurs fondamentales de Diom, de Foule et surtout au retour du culte au travail. L'amour de la patrie et le respect des institutions et la primauté des biens communs et les intérêts particuliers, cela doit être toujours sacré. Le mouvement War s'engage à mettre en œuvre un vaste programme de sensibilisation dans tout le pays, mais sa cible reste particulièrement les jeunes, la couche juvénile de la population sénégalaise. Euh, donc, euh, j'ai voulu résumer le discours en français que vous avez, chers journalistes, euh, pour également faire une transition en Wolof avant de vous mettre avant de me mettre à disposition den sant euh, man maa ngi tudd Pape Samba Sène maay président yu mouvement citoyen waar waar mu ngi tekki war na askan bi raw bokkuma ci benn parti politique buy kujjee wala buy opposition ndax mouvement bi ñu indi fii tey ñu war ko relancer sos nañ ko il y a de cela deux ans ñu ngi ko sosoon ca Saalum fa mu fekk baax def ay activité mu tombe tuuti ci fin Covid bi ñu fépp fu ñu jaar muy collège muy lycée Valdiodio muy feneen ñu jëflanteeg ñoom te loolu mosuñ ci jóg te duñ ci jóg mukk parce que li ñu gëm moom mooy jàppalante ak dimbalante waroo xaar boo ne ne da nga toll ci benn posture bi wala benn position bi pour def ko sa sacerdoce la si ñun ndax bëri na ñoo xam ne tey ñu ngi fii nii ay journaliste lañ xamante nañ si terrain bi amante nañ coloré amante nañ ay baax baax ak ay jëflante si bu rafet te ñu ngi teew fii donc euh, li nga xam ne mooy suñu mëbëb di suñu yéene di suñu objectif mooy askan bi delluwaat gëmaat Sénégal que Sénégal war na tegu ci yoon ndaw ñi tamit chimères yi ñu leen doon jaay ak yenn slogan creux yi yooyu ñu xam ne kat liggéey mooy jëmale réew ca kanam kon ñun bokk nañ si ñi gëm ne euh, ay toog muy dox non ñun dañ gëm ne da ngay dox muy dox donc ainsi que jël jeunes yi gëmloo leen que euh, Jakarta wala deux roues rek moo war a indi meññanteef. non ñun dañu gëm ne lépp looy liggéey même boo tegee kafe bi gëm ko sellal ko dafa war a jàll te valeur yi nga xam ne tey suñu politique yi ak gouvernement yi fi jaar depuis une décennie dañu xaw a tooñ bu baax a baax tooñ bi ñu tooñ mooy bu njëkk boo duggoon école wala ngay dugal école sa doom dafay jéem a roy ci monsieur am ne monsieur am la bëgg niru wala jàngalekatam wala xam ne jàng rek mooy indi Euh, comme ëllëg ñu dem ba jaay ñu ne da ngay euh, snap wala da ngay bëree wala da ngay def leneen lu gën a yomb euh, tedd ba mu am benn impact négatif ci ndaw ñi loolu nag dañ ci bëgg a taxaw di ci wax di ci jëf waar nag dinañ ko yaatal mu dem ci région yëpp donte def na Saloum def na Thiès def na banlieue bi réew mi jaxee na comme ñun politique du suñu liggéey ñu def benn taxaw seetlu tey jii moom mooy relance bi ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay bu rafet ak teewaay bi nga xam ne teewaay bu massif la et on est à votre disposition. Alors euh, je disais tantôt que le mouvement c'est vrai il a été créé il y a de cela ans donc, dans la capitale du bassin arachidier euh, d'où est originaire son euh, son fondateur n'est-ce pas Alors, euh, mais vous aussi euh, de recevoir dans ces explications euh, euh le fait de savoir qu'il y a entre-temps, disons, euh, euh, de la pandémie de la Covid-19, n'est-ce pas Donc, qui a vraiment un frein à tous les niveaux. Alors, et qui a plus ou fait, justement alors influer euh, sur euh, euh cette non-participation, disons en fait, euh, en fait, qui a expliqué plus ou moins euh, le fait que le mouvement a été inactif justement depuis sa période de création euh, bon, jusqu'à maintenant, n'est-ce pas Vous savez euh, aussi que... Je saisis un peu la balle au rebond pour un peu compléter Euh, n'est-ce pas donc euh, en quelque sorte moi je suis euh, convaincu que lorsqu'il pleut on fait pas le ménage donc à un moment donné il fallait observer puisque nous notre métier c'est un peu en quelque sorte l'observation euh, il y avait beaucoup de couacs des empoignades et une crise avec de la violence et autres nous autres on n'est pas des politiciens euh, professionnels et d'ailleurs Euh, c'est ma philosophie. Moi, je, me, je crois dur comme fer que la politique ne doit pas être un métier. Donc, c'est ça, c'est ça qui explique cette petite pause euh, qu'on peut appeler, peut-être qu'on était en berne, et on faisait ce qu'on faisait par, euh, en sourdine, mais peut-être on n'était pas, pas au devant, euh, on n'était pas sous les projecteurs. Oui. D'ailleurs, je félicite euh, euh, le nouveau président le nouveau chef d'État son excellence Bassirou Diomaye Faye euh, que j'encourage et qui suscite de l'espoir nous des années 80 nous sommes de la même génération il vient d'arriver euh, soyons optimistes et croisons les doigts et prions pour qu'il réussisse qu'il réussisse Euh, pour ceux qui sont dans le casting euh, et peut-être qui ont problème avec euh, l'image, le physique, non, je leur dis arrêtez ces enfantillages et ces conneries. Soit on a besoin de Bassirou Diomaye Faye pour ce résultat, ou, ou, on a besoin de Bassirou Diomaye Faye pour un défilé de mode. Il faut qu'ils arrêtent, de Dieu. N'est-ce pas Ces trucs de casting, de costumes, de je ne sais pas quoi, mais les Sénégalais ils veulent ils veulent que le riz soit accessible ils veulent que l'électricité baisse ils veulent des routes les jeunes veulent de l'emploi non de Dieu donc moi j'étais aigri et meurtri au fond de moi lorsque j'ai vu que de l'autre côté et même du côté de l'opposition à un moment donné il fallait tirer sur lui par rapport euh, à son port vestimentaire par rapport à sa manière de faire Mais peut-être euh, en pleine campagne électorale, je m'étais dit, ça c'est de bonne guerre. Mais après, il faut qu'il cesse ces enfantillages, nom de Dieu. On est tous sénégalais, n'est-ce pas Et j'ai comme l'impression que c'est trop le laisser aller. C'est notre ère, c'est le net, c'est le WhatsApp, c'est Facebook, c'est les lives. Mais il faut savoir raison garder et surtout prioriser euh, euh, euh, l'essentiel et non pas s'arrêter toujours sur des détails voilà waaw ba euh, son excellence maa ngi koy euh, félicité moom ak Ousmane Sonko euh, di leen ñaanal ñu réussir seen mission d'ailleurs sax man dama xawoon a mel ni ku ñuy jàmm ay puso bi ma gisee ci biir campagne bi ñi nga xam ne ñoo doon ak moom melukaan lañ doon xool ak colin mais je leur dis mais c'est quoi ces histoires mais nañu arrêté loolu nag bu fekkee ne si biir campagne la woon c'est de bonne guerre mais après la campagne soit les sénégalais euh, dañuy soxla un président boo xam ne dina wàññi dund gi wàññi ceeb bi ñu arrêté toog muy dox ñëpp gëmaat liggéey journaliste bi ñu respecté ko kenn du ko brutaliser kenn du ko exploiter parce que aussi booy joxe ay leçons euh, li ñuy wax booy digle sangu nañ la ci fekk ah il faut balayer devant sa porte donc euh, Bassirou Diomaye fay suñu génération la xale la jàng fa mu war a jàngee am na ku ñu wax ne d'ailleurs expérience mais expérience bu fekkee ne depuis 1960 ñi am expérience jëmale wuñ ñu fenn bu ñu nax noonu de jë Sénégal fan la dem bu ñu yeewoon Valdiodio ak Senghor dañu ku ci nekk dangay dem sa kër y a trop de laisser aller certes kenn du nekk un nihiliste defuñ fi dara ay quelques tel yeeg yooyu mais il pouvait mieux faire côté immatériel nag foofu vraiment fii lañ toog ku ku ku doonul sa mbokk rek méttiwul jël fi ay doomu Sénégal yoo xam ne ànduñ ak un régime mais coono bu nekk ak rey soo doonee kilifa diine wala nga doon kilifa aada wala nga doon borom kàddu xooloo askan bi li nga xool rek mooy lañ lay ceebal yooyu nag vraiment il faut que mu arrêté pour que ñu Sénégal mu amaat beneen euh, regain d'enthousiasme ñëpp songu ko mu jëm sa kanam ku ci nekk def li nga war a def vaches yi dañuy les vaches seront mieux gardées donc euh, côté boobu maa ngi euh, koy félicité moom basiru Diomaye fay di ko wax ne ko yi muy sol yooyu bu mu ci changé dara mais fii ba trois mois na teg ay actes yoo xam ne dina dalal xel su ko deful nag ñun suñu parti politique du Pastef du Bassirou Diomaye Faye du keneen askan bi la askan bi nag fépp ku fuñ koy nootee dinañ ko méttitlu ni ko diine waxee dinañ ko wax dinañ ko jëf y compris lui-même et son équipe affaire bi nag du pàccoo encore une fois ma jàll foofu réew bu ñëpp bokk intérêt yi intérêt général bi moo war a jiitu donc euh, priorité yi ñoom aussi ñi ñëw buñ ko buñ ko euh, fàtte donc c'est ça. de notre côté euh, moi toujours été du côté du peuple si quelqu'un m'a vu être du côté. du pouvoir ou de l'opposition euh, na ko génnee ñu amuñ jot boobu suñu ceddoïsme ak suñu gëm suñu bopp dañ koy incarner on préfère euh, euh, suñu dignité que lu nekk donte nag dans ce pays là bi mu jotee ñu war a gëm suñu bopp am na ère bu ñu ubbi en 2014 te y au moins 4 à cinq journaux gëm nañ suñu bopp ñëw Grand Dakar samp benn journal commencé ko ak ñi ngeen gis xam leen ci terrain bi je pense que depuis dix ans mosuñ dégg ne l'évidence lii wala laa am na ñu fi jaar nag jóge fi loolu mooy àddina yoo otoraay la mais nekkin bu rafet donc ñun dañ mës a gëm ne euh, pouvoir dañ koy exercer ñun ñu am lu ñuy exercer ñun aussi am rôle bu ñu war a jouer donc on n'a jamais été d'un côté ou de l'autre. Non, y compris le mouvement. le mouvement. donc durant campagne vous euh, non non non non mouvement bi euh, côté bi mu nekk mooy askanu Sénégal je pense que c'est clair. vous savez aussi je m'interdis moi-même euh, euh, de de de de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué donc man li ma gën a yitteel en français ou en wolof. non les li ma gën a yitteel man mooy naa ko juger ci ay actam te loolu dafa laaj tuuti temps donc tey duma ñëw commencé mel ni ku gëmm wala ku am heure rek yooyu di dof dof lu non non non il faut que ñu may ko temps xool nan lay doxalee donc euh, ci position yi mu jotoon a jël en tant que kuy seetaan lu bëri kuy observer la scène politique mais dama ko mos a admirer ah parce que euh, je me rappelle Euh, Mouhamed Ndiaye am na question bu mu ko laaj bu mu ko laajee ne ko est-ce que position Ousmane Sonko bi mu jël ci assise yi et nangam je pense que il a sorti le mot naafeq ñun du ñu ay naafeq tout de go et am na feneen fu mu ko def ah ci plateau euh, Maïmouna Ndour Faye am na feneen fum ko def donc ku mel noonu damay gis man ay position am dama ci gis sam bopp parce que ñun kenn du ñu layam layam yi wala nga berne ñu donc koo gis ñu naan dañ ko jënd rek parce que ñun depuis 2000 euh, ça fait quatre ans que ñu ngi ci seen bi ah donc bu ñu sampee dara mu intéressé pouvoir ñu ne leen ñun askan bi moo ñuy tax a ñor mu inter intéressé opposition askan bi tax ñoo ñor ñuy ñuy xool di observer c'est parce que dañ am ay valeurs yu ñu téye donc bassiru Euh, am nay valeur ah dama koy nekkoon dama koy ñaax si valeur yooyu na ko gën a téye maintenant jàng na fa mu war a jàngee am diplôme yi mu war a def de surcroît un inspecteur principal des impôts de domaines mais tout le reste c'est des nominations il faut pas qu'on nous dise ban DG la ban ministre la ana ñooñu DG yeeg ministre yi fan lañ jëmale réew mi alors donc mu am mun na am lu yëngute la ko yëngaloo bu ko doole ah tu consommes tout ce que te dit Olof Ndiaye en tout cas li ngay laaj nii tontu woon naa ko ma tontuwaat ko donc dañ nekkoon ci observation di xool gis mu yëngu jaxasoo ñu taxaw seetlu te yaakaar naa ne wax naa la sànq ne buy taw doo fobeere on fait pas ménage quand il donc looloo ko waraloon dañ doon xool ñun politique du suñu liggéey ñun lu ñu am dañ koy bokk ak suñuy mbokk suñuy ñooñ suñu euh, ñi ñuy liggéeyandoo mois je préfère ñu may liggéeyandoo que man ñoo xam ne dama nekk seen patron ñu ngi fii autour de mois ñu ngi fii Ibrahima Diassé mi je le connais depuis plus de dix ans Évidence 2014 laa ko créé kenn nekku ci ginnaaw ku dul yàlla ak ñun amuñ jot boo xam ne dañuy dem si Masamba ou Mademba moo tax on n'a pas peur duñu changer suñu veste mais Sénégal nag loolu moo fi bëri ku la abal ay bët. non non non non non non non j'ai compris j'ai compris. non bëgg mu ñëw directement ci li ma ko laaj je suis journaliste comme vous dama la laaj li ma la laaj laa bëgg nga tontu ma waxuma nga waxal ma lu nekk ci évidence ak dëgg kañ kañ ko créé lan moo undu sortie bi loolu rek poñe même bu dee deux secondes loolu laa bëgg a xam. soit Sara. voilà ok li ko undu dañ doon seet réew mi yëngu duñu politiciens ñu que bu amee ku ñu. moo molotov wala am leneen ñun ñu war a jóg ñun citoyenneté la ñuy def askan bi mooy suñu parti benn moment c'était flou donc il fallait que ñu def taxaw seetlu c'est juste qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Okay. Est-ce le fond du programme? Vous avez parcouru euh, texte liminaire de fond en comble en fait. euh, je tiens compte de vos préoccupations, du temps qui est très précieux, time is money. Je suis un chef d'entreprise, le temps il est très précieux. Donc je ne suis pas attardé à faire comme à l'école primaire pour lire un discours bateau, un, un discours kilométrique. On a euh, certes des projets mais des projets qui ne sont pas des projets d'un milliardaire ou d'un jeune Richard. Oui, euh, et d'abord, euh, les projets, et l'économie, c'est dans la tête et dans l'esprit. Donc nous, euh, on, on va appuyer les populations dans, leur, euh, dans leurs intérêts. Parce que si vous voulez accompagner des marieurs mais vous devez aller vers ces mareyeurs savoir euh, un peu leurs préoccupations leurs priorités et les aider concernant cela si ce sont des menuisiers ou bien des pêcheurs ou euh, un autre corps de métier donc nous on a des des des, des professionnels des experts et de hauts cadres dans tous les domaines ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas venus puisque c'était juste une rencontre avec la presse qui savent euh, monter des projets à ma droite celui-là il n'y a pas meilleur expert en projet dans ce pays et vous ne le connaissez pas il anime des des des ateliers au Sénégal et d'ailleurs on a des des des des directeurs décole supérieures on a des docteurs dans des domaines, etc. Mais euh, on ne voudrait pas brûler les étapes. On va y aller step by step, pas à pas, donc donc mais sûrement. Donc c'est ça. Revenir ou repréciser un peu mm -hmm. euh, que une vocation donc euh, économique, n'est-ce pas hmm? Donc liée au développement. Euh, tantôt j'ai dit simplement que j'ai rappelé qu'il y a eu quand même quelques actes qui ont été posés depuis sa création, donc euh, allant dans le sens de l'appui, de l'assistance aussi, en fait, euh, des couches les plus vulnérables de la population, en particulier au niveau, au niveau du Sin Saloum. Hein? Donc, euh, d'où est originaire, euh, en fait, voilà, le, le, le, le fondateur, n'est-ce pas hein? Donc, euh, et parmi ces actes qui ont été posés, Donc, euh, il y a eu, par exemple, la distribution de fournitures scolaires euh, bon, donc à, des, élèves, n'est-ce pas Bon, il y a aussi euh, la distribution de vivres, n'est-ce pas Donc, au niveau de certaines localités. Donc, voilà d'où il est originaire. mais comme il l'a dit aussi, en fait, il y a des préoccupations beaucoup plus, disons, grandioses par rapport à tout ça, n'est-ce pas C'est-à-dire que le mouvement entend euh, très certainement poser des actes, donc euh, à des échelles beaucoup plus grandes, n'est-ce pas Alors, qui, Et qui va concerner euh, très certainement, le reste du pays et aussi d'autres couches euh, sociales beaucoup plus, beaucoup plus importantes. Une autre question euh, S'il vous plaît, euh, pour cette nouvelle du président Sall, je l'ai eu comme plusieurs d'entre nous, hein, vous savez, ce pays-là, c'est deux poids, deux mesures. Moi, je, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas concerné, puisque nous, on est respectueux un peu des règles du, du, du jeu. Dans ce pays, personne ne peut contourner la législation. Si vous voulez travailler normal et gagner des marchés, c'est sûr que vous êtes muni au minimum d'un quitus fiscal. En tout cas, nous, au niveau de notre groupe de presse qui concerne le quotidien L'Évidence, le site Sénénet et Évidence, euh, la chaîne Évidence TV, on n'est pas concerné par cette mesure du président salle voilà. ma wax ko ci euh, xibaar boobu ñu déggoon que président Macky Sall jot na quelques patrons de presse oyofal leen. oyofal leen war a leen sax ay euh, tax ak yooyu loolu niñ ko déggee daal mooy bi toogee ci chaîne yi télévision yi rek dégg ko ak groupe ba mu ànd donc euh, comme li daan am rek nga xam ne dafay waxi ci ay médias internationaux temps yi la xaw a kii tane muy jël quelques médias donte sax jël ñëpp mënul nekk mais loolu benn euh, kii la bu xaw a bu ñu xaw a neex parce que ñun Sénégal rek lañ lañ lañ bëgg Sénégal rek lañ gëm mais daal xibaar boobu moom ñun euh, en ce qui concerne gisuñ ci lenn lu ñu amal njëriñ te gisaguñ mu concerné ñu ko trop waxtaan bi tamit euh, leer la te amul layam-layami donc dinañ ta dinañ bëri luñ koy def nag dinañ poser ay acte di soxla yéen it seen accompagnement euh, ci fi ñu jëm démarche bi ñu yor moom seen une démarche citoyenneté euh, citoyenne bu ñu bu ñu ñeme askan bi nag moo ñu ñor ñi fi nekk suñu tegoo ci loolu luñ def lu baax dinañ ko euh, tàccu suñu wàccee yoon bi bëgg a def lii fii ñiñ fi jëlee defoon it ñoom su boobaa li ñuy wax xiir bi da leen di dal donc Sénégal boolewuñ daray wax parce que fii Sénégal ngay gis koo xam ne barke démb yoru doon ñaar dërëm tey mu yore ay milliards di ko foye di jënd ñenn ci média bi parce que am na ñoo xam ne tey nekk nañ fi ñun ñu xam leen depuis vingt cinq ans ñu crédible lañ ñu gëm seen bopp lañ te njëg gor moom boo déggee ñu ne jënd nañ ko si wàll bu muy liggéey bu munti doon ak politique ak lu mu munti doon rek laajteel ndax kooku amoon na ngor parce que am na ngor li sëñ bi ku baax ki waxoon euh, bañ ñëwee ne ko dañ dafa am ku jaay ngorom mu ne kooku amu ko woon donc lii nag euh, euh, liñ jógee nii muy cette euh, cette alternance la avec l'avènement de Bassirou Diomaye fay ak ki ko àndal muy Sonko mënuñ ci def black out ñu ngi koy féliciter moom Ousmane Sonko ci xeex bu xeexal réew mi ak constance ak valeur ñu voué ko aux gémonies jeté ko en pâture taqal ko def ko lu ne mu dëgër ay nit faatu ci ñu nit ñooñu nag c'est des martyrs ah. bu nekk doon loolu tey xëy na réew mi dina gën a tagga témbe parce que dañ lay dënk senegal ñun ñi mën nañu dal mën nañ jël ay prérogative jox ko nit boo joxee baadooloo prérogative da koy def moomeel donc réew mi dañ leen ko dënkoon mais moomuñu ko te vous allez voir ça va être extraordinaire dañuy mel comme tremblement de terre dañuy mel comme des abeilles sur un hectare ils vont migrer ils vont migrer mais foofu lay interpeller les nouveaux dirigeants am na ñoo xam ne amuñ valeur muy ci wàllu sëriñ ci muy ci wàllu communication bi muy ci wàllu sociale bi muy ci wàllu leneen muy ci wàllu leneen parce que ba réew mi tàngee nag am na ñoo xam ne dañoo lem seen geen toog te loolu fii la ñu fekk léegi commencé nañ Mouhamad al Bachir mais tu es tu es sidéré tu es sidéré mais mais mais mais c'est di n'importe quoi mais au moins sax gars yi nañ bàyyi sax mu jël passation ñu bàyyi ko mu dawal sax mais daal dañuy won ni vraiment da nga toog muy dox bi dafa yomb quoi trop te suñu wàll aussi Basirou je l'interpelle saaga yi am ak ñàkk valeur yi ak ñàkk worma ak wone say cër ak indi ay yu doy ci ay pour pour se faire vraiment de l'argent facile mais nit ñi nañ ko wàññi quoi gor am na loo xam ne c'est du Sénégal quand fii lañ fi la fi nit snap ay partie intime am su ñëwee dañ koy ziar non mais basta c'est n'importe quoi c'est quoi ça donc il faut que aussi ñun ñu mën a ñëw ne la gars yi xoolal valeurs yi dafa war a dafa war a ñëwaat quoi comme neex nag nga libre def lu la neex mais yenn yi moom trop c'est trop te loolu xaar nañ ci les nouvelles autorités voilà bu fekkee ne waaw merci